xam nga lan laa wax. déloger u président mënul baax. mënul baax xam nga lan la dund nangu. Mhm. lan lañ dund nangu. non ci kaw. Paa Matar s'il vous plaît s'il vous plaît yaa quelque man man la ma dul nangu. Mhm. ma néew ci mais ma jàpp ne am na ñetti Sénégal yu may représenté. Mhm. mooy politiciens yii du ñu nangu ñu taal réew mi. ci seen i ay caprice loolu leer na alors on leur fera face avant ñu avant ñu àggal rek euh, parce que dafa am euh, euh, fi xam nga booy def un débat comme ça da envoyé souvent des informations xam ne il faut les manipuler avec prudence mm. daf ci am yoo xam dañ ko pro dañ ko prêter El Malick Ndiaye de de Pastef il est avec nous El Malick maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu di la ziar bi euh, très bien euh, euh, El Malick dafa am ñu ñu wax ne yow yaa annoncé ne gendarmerie dafa jot ordre arrêté Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz est-ce que noonu la mbir yi waa waaw jërëjëf Moustapha maa ngi lay nuyu di nuyu ñu nekk foofu ñëpp mhm. tey dañu doon dund bés boo xamante ne nii yaakaar naa Sénégal yëpp def nañ ci seen bët ci li jot a xew. Euh, bu ñu ko tuddeewul jaay doole hmm. ak faagaagal doomu aadama ak néewal doomu doole doomu aadama ak xañ doomu aadama ay liberté ñun dañu nekk parti politique nekk aussi ay sénégalais nekk ay patriote mu am ay patriote fépp ci réew mi nag bu ñu gisee ni ñu doxalee tey ca njëlbéen ga cinq kër du matin ba léegi kër Ousmane Sonko ak kër Barthélémy Diaz ñu toog ñu jot ay information yoo xam ne dañuy alerter te ku xool li xew tey ak la xew kër Barthélemy Dias bi nga xam ne ñu ngi doon forcer porte bi nga xam ne bi xalifa Sall di wax ak moom maa ngi taxaw laataa boobu woon nañu nañu gars yi bëgg nañ lenn attaque am na loo xam ne sax duñ ci yedd ci information yi jot mais li am solo mooy ñun bu ñu jotee information dañ koy relayer Mm-hmm. Pour là, d'abord, pour prendre l'opinion nationale à témoin mais surtout pour éviter mu am parce que bu ñu nasee ay pexe nga jiitu leen ci seeni pexe wax ko dinañ soppi doxalin xooli leneen li ñuy wax couper l'herbe sous le pied donc encore une fois durant toute la journée dañu doon relayer information yi am yépp Mm-hmm. ak yi ñu jot yépp et loolu su amee c'est parce que ñoom ni ñu doon doxalee la te tey si ñooy yépp loolu la wone woon mooy ils ont reçu des ordres pour fexe ba opposition bi ku yëngatu ñu ñu ñu ñu jàpp kenn mënul génn restreindre les libertés mm-hmm. mais Déthié Fall fan lañ ko jàppe permanence donc ils avaient reçu des ordres d'arrêter les leaders de Yewwi Askan Wi effectivement parce que nga nga nekk sa biir siège wàcc ci sa biir siège ñu jàpp la c'était devant moi bi ñuy jàpp ak bi ñu bi ñu koy jàpp di ñu gazé. Mhm. Euh, El Malick euh, euh, su fekkoon ne gendarme yi dañoo jot ordre arrêté Ousmane Sonko wala Barthélémy Dias yaakaar nga ne Ousmane Sonko dina génn taxaw waxtaan ak ñoom delluwaat këram en toute tranquillité ah non loolu ban heure la ko def. mi ngi nii may jàkkaarloo c'était bi ñuy waaj a julli tisbaar ban heure ak ban heure lañ ko prévaroon bi ñuy waaj julli tisbaar la lii. non bi ñuy waaj bëgg na dem julli ji tisbaar. Mhm. ñu ne ko doo dem. waaw bu delluwaat ci njëkk ak teraanga. Mhm. bi ñu paree ci loolu. Mhm. ñun ci la ñuy ay information d'accord te bi moment bi ñu koy wax balaa ñuy daaneel gis ngeen li xew biir kër Barthélémy Dias xëy na nag seen xel yedd na leen ne. président Ousmane bu ñu ko tegee loxo xam nañ fa mu mujjee loolu mooy li am mais c'est très normal ñun en tant que formation politique en tant que Yewwi Askan Wi les informations qu'on reçoit ñu informer ñu ñu koy relayer pour que public bi yëpp. d'accord te euh, loolu dañ koy doxale saa su nekk hmm. ak saa suy amaat tamit. Hmm. parce que ñu ñu ko seetal amuñu élégance xamuñu lan mooy démocratie. xamuñu lan maanaam lan mooy respect mais des libertés li am tey naka la ko nit mën a daganale je pense que waruñu sax toog di attardé wu ci ndax euh, génne naa li génne bi li et cetera li am dañ koy génne saa su nekk parce que dañu nekk ci combat boo xam ne <laughs> aussi ba tay di nit ñi di jot information yi à temps hmm. parce que ñoom ñoo yor seen i services généraux ñoo yor seen i renseignement ñoo seen ay stratégie d'accord El Malick bi ñu doon doxal gis ngeen parce que li am tey parce que dafay am écho aadama mënu ko nangu ci mim réew na am laaj bu ma la yóbbante euh, ndax euh, jamono ji ñu nekk mooy jamono li nga xam ne moo di ay manifestation yu ni mel est-ce que jamono yi euh, des fois aussi da ngeen daan génne ay information di ko joxe jàpp na sax état xëy na ëpp leen ay xibaar moom itam ndax lu ci bare bari dañuy gis ngeen di ko bind est-ce que mënu leen a jàpp ne des fois aussi mën nañoo dem ba di def lu ni mel mooy di leen manipuler pour que ngeen daanu ñu décrédibiliser leen après. comme li ngay wax noonu. Hmm. te mettre sur une fausse wala ay genre yu demee noonu. mais xam nga la mooy li am solo. Hmm. mooy boo jotee xabaar. nga xam ndax xabaar bi nii soo ko génnee ak soo ko génnewul lan mooy njariñ la ak lan moo dul njariñ la c'est le plus important du ñu toog nag. Euh, euh, bu fekkente ne loo am na ci comme ni ma la ko waxee. du li ñu hmm. du li ñu wax yëpp lu ñu génne de. parce que tamit nag ay euh, ci dëkk bi lañ dëkk te am na loo xamante ne nii xëy na ñun ak nu mu mën di demee suñu suñu du ñu yegg foofu en quelque sorte. mais li ñu jot ay xabaar yëpp mënuñ ko génn d'accord lañ ca war a génne lañ cay génne pour askan wi xam. Mhm. la mooy seen bébét. dafa am loo xam ne buñ la ko waxul sax nga war ko xam. Macky Sall ak ñi mu àndal suba ba ngoon nu muy fexee lee Ousmane Sonko ci lay liggéey liggéeyatul ngir Sénégal liggéeyatul ndax Sénégal. Euh, nan mm-hmm. nan la ñuy El Malick euh, maa ngi lay sant di la gërëm li finalement euh, li ñu li ma li ma bëggoon dégg euh, dégg naa ko finalement parce que dañ moom lañ prêté woon ne moo wax ne gendarmerie dafa jot ordre jàpp Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz effectivement nee na moom moo ko moom moo ko wax c'était ça le plus important que ni que effectivement moom moo ko wax